Abdoulahan Mbacke Diouf quoi. Mhm. Nek coach Africa Sport Football Club quoi. Mhm. équipe bi Africa Sport Football Club le tudd. ñu juddoo parcelle quoi je comprends dañu nek ci ben défar bo xamanteni ñu ngi ci di liguey académique là. parce que académique la ñu ngi ci di liguey chaque instant ñu ngi liguey quoi les liguey bi. dafay gën a yemb sa ok dëgg la parce que comme jàmbaar comme génération foot yooyu kenn ku nekk bëgg na yegg foofu noonu ñu toll ñoom foofu ñu toll noonu ñun fa lañ bëgg a yegg ñu nekk seen ginnaaw ñun tamit am na ñu nekk suñu ginnaaw quoi am na ñu nekk suñu ginnaaw xam nga ñu ngi ci di liggéey peut-être euh, affaire bi mu ngi doog a siiw nii affaire bi mais peut-être yàgg na. na euh, ay jours yoo xamante ni fii lañ nekkoon ñu ngi à l'extérieur affaire noonu fii lañ jógee. grand bi yóbbu leen quoi affaire yooyu noonu mais sant yàlla quoi donc sant yàlla. Euh, ki nga xamante ni mooy kilifa gu mag gi mi ngi extérieur quoi mooy mi ngi extérieur mais am na ñeneen ñu nekk fii nii Sénégal affaire yooyu noonu quoi. Mhm. gis nga footballeur football ku nit ku pauvre moo koy def soo xasee ba am do mun nekk footballeur sax parce que li football di laaj dafa métti foog nga nekk koo xam nit ku fin nga nit ku xiif nga pour yow li nga bëgg a def nga mun ko def parce que tey jii ñun bu ñuy entraîner su ma nit ñëwal 4 h du matin day ñëw 4 h du matin tu comprends day ñëw 4 h du matin quoi mais amna ño xamanteni xamante si ils ont les moyens so leen nek 4 h du matin dañ na mais coach bi est ce que wërna amna ay nit yo xam sax dañ na celui là est ce que il est normal si à cause. ok ok ok ok àdduna mom bul bul bul nangu ku la wutal sa yoon sa yoon ya koy wutal ci sa sa sa bop nga xam lu la ci fekk nga xam moy lolu bul nangou nit naan la ni ngay def wala na ngay def yow concentre-toi sur ton objectif comprends nga nit ki objectif am rek mom moko ñor leneen ñoruko quoi lañ la wax lu ne dinañ la traité nu ne nak mais yow concentré wul ci li nga wara def. nek capitaine Africa Sport Football Club waaw waaw club bi booba léegi ñi ngi fi di évoluer def na fi def na fi 3 ans booba tay ñi ngi fi di évoluer di di di sant coach yi nga xamanteni ni ñoo ñu yor fi tamit. mel ni Abdoulaye ak coach bi nga xam ni moo président club bi muy euh, Grand Touré ñu ngi leen di ñu ngi leen di sant quoi parce que bi ñu fi ñëwee ba léegi ñu ngi gis yokkute ñu ngi gis avancement ñu ngi fi ñu ngi fi am expérience bu bëri tamit quoi ñu ngi football ak équipe yoo xamante ni dañ leen doon seetaan rek euh, ñu ngi joué ak ñoom ay match yoo xamante ni mi ngi yokkal lu bëri quoi. waaw ñun moom ñi ngi fi di liggéey parce que comme liggéey rek moo ñu ñor liggéey bi tamit moo moo moo moo mooy tax nit ki mën a mën a mën a avancer ñun liggéey bi moo ñu gën a ñor moo tax chaque jour ñi ngi ci liggéey bi quoi ñi ngi ci liggéey bi parce que gis bu ñu fi gis suñu bopp tamit coach yi yor bu ñu fi yor xam nga nekk nañ ci condition yu baax moo tax booba léegi tamit ñun ñu nekk fi quoi waaw mais waaw parce que tamit li ñuy def compétition la parce que chaque week-end dinañ dem jouer ak équipe bu championnat comme match compétition lundi ba vendredi ñi ngi entraîné xëy na li ne pandémie bi sax moo tax mais pandémie bi tamit moo tax ñu gën a xëcc heure entraînement yi booy xool 4 heures du matin la ñuy entraîné ba 6 heures parce que comme dañuy tere yenn kii moo tax ñu koy def boobu mais tamit teewul ñu ngi jouer chaque chaque week war a jouer ak waaw non franchement franchement entraînement yi jaar na yoon entraînement yi métti na xam nga tamit xam nga ñu ngi koy récupérer mais métti na trop entraînement métti na trop fii moom franchement gars yi moom ñu ngi ñuy teg ci condition yoo xamante ni saa boo génnee tamit xam nga dañ naan kii fu mu nekkoon xam nga entraînement yi jaar na yoon quoi franchement boo xoolee Instagram bi ak Facebook bi sax di nga gis ni entraînement bi jaar na yoon waaw. waaw waaw ñu ngi ciy ñu ngi baax a baax a baax. Ok, merci. Hein.